salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaat في كل سار murit yi déglu leen ma deeti way bésab Sëriñ Mbamba ba mooy 18 safar 1895 18 safar la Sëriñ Mbamba dékku yéen ba dem wuy ji Ndar fajar la génne Mbàkke ànd ak ña ko dar ñoo ñaa doroon rasulu ñoo ehlu Badar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 yàlla na yàlla muccal ci tension ak lépp luy matt ba si yoon yàlla na yàlla muccal ci paralysé ak police bu yor karawaax di liifee yàlla na yàlla muccal si jabet ak lépp lu lerant buy maas ak lépp lu expiré sa ba mel ni gaz yàlla na yàlla muccal ci weewu teggeeku ak oto buy daw pëna ba wekkeeku yàlla na yàlla muccal ci coronavirus te def ñuy ay murit yi saxoo durus yàlla na yàlla muccal ci dabala ak gépp ñàkk ak tiis ak balaa yàlla na yàlla muccal ci dégraté ak bépp saay-saay bu jóg di karaté yàlla na yàlla mu jël ci kiris koros ak jëf-jëf joo xam ne kooku gis ñu rus asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar salaat allazi fi kulli saarin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar